dal leen jàmm ci seen revue de presse bu talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre atum 2019 ñu dooree ci yenikaay bi di 24 heures bi xëyee ci jaamaarloo bi doxoon diggante takk der yi ak ñi nga xamante ne ñooy nappkat yi nekkee ca tefes bu mbuur muy approché boo xam ne mu ngi toll ci ñetti milliards ci suñu ko kopparu réew ba tey ci biir yéenekaay bi di 24 heures jëwriñ bi ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye ma ngay wax ne li ne mel mat naqari na ko lool ndax nag ay nit am nañ ci ay gaañu gaañu ci loolee ñu xamal ne nit ñu baree bari gannaaw ginnaaw gaañu gaañu yi ñu am diggante takk der yi ak policiers yi metti woon na lool te tar ca mbuur ca tefes ga ba tey ci loolee ñu ngi xamal ne ki nga xamante ne nag moo di jëwriñ bi ñu dénk wàll napp gi nee na bu jaree sax ñu daal di toxal li nga xamante ne moo bi le projet dañu koy def source a ma ngay xamale ne ñi nga xamante ne ñooy nappkat yi la leen metti du daara lu dul daal yëkkati rek benn projet tëral ko fa te waxtaanuñu ak ñoom benn yoon moo tax ñu lànk ba tëdd ci naaj ba diggante xiiroo ak ŋaayoo bi nga xam ne dox na ci diggante ñi nga xamante ne ñooy nappkat yi nekkee ca Mbuur ak takk der yi muy ab projet boo xamante ne mi ngi toll ci juróom benn milliard ci suñu kopparu réew nara dox diggante Joal ak Mbuur ñetti milliards ya ñu ngi xamal ne mu nga jëm ca construction ak équipement ya ñi ñu ko xamal ñoo di waa source a témoin ba tey ñëw na ci li nga xamante ne moo di bébule quai de pêche nee na nag na seen xel dal ab quai de pêche dong la waaye nag ñi nga xamante ne ñooy ñenn ci nappkat yi dañoo yaakaar ni euh, mbir mi nag ab usine la boo xam ne dañu ko bëgg def ngir nag def farine façon le quotidien réew mi nag moom nee na démb gannaaw tàng-tàng ba nga xam ne amoon na ca mbuur diggante takk der yi ak ñi nga xamante ne ñoo di nappkat yi door nañu fa ab takk der ba xamatul nag fa mu nekk loolu waral ki nga xamante ne mooy jëriñ bi ñu dénk wàll napp gi di Alioune Ndoye daa daw rek dem ca mbuur ngir nag nemmeeku ñi nga xamante ne mooy di préfet ba ak ñi nga xam ne ñoo di acteur yi vox populaire ba tey li dox ci diggante takk der yi ak policier yi nee na rek moo di ab quai de xam milliards te ñi nga xamante ni ñoo di nappkat yi dañoo lànk ba tëdd ci naaj wi les échos moom ak ñuy xamal ni ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi démb day dañoo dawa dawa dawa daw ba mel ni ay njombar fit di lañu def dañuy daal di addu daal di wax ci leneen mu jëm ci li nga xamante ne mooy yokkute courant gi Matar Cissé di jëwriñ bi ñu dénk wàllu énergie nee na Macky sàll nag bu mu topp xolam na bàyyi rek ñu daal di wëyal daal di liggéey ngir nag dëkk bi mën a jëm kanam libération lay xamal ne bile ne di éco daara baaxu ci moom daal jàpp na ne sax am na leneen loo xam ne moom moo laxacu ci ginnaaw coppite gi daal jàpp na ne daal ay ndëgg sërëx moo ne ci biir Dakar Times ba tey ma ngay wax ni ma Macky Sall njiitu réewum Sénégal dafa war a jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoo di sénégalais yi waxtaan ak ñoom ndax mbir mi leer ci diggante CFA ak éco jërë ngeen jëf